ku ku xam sport dëgg-dëgg di nga xam ne lii nekkul la nga xam te ni luy luy hasard lay doon quoi wala wala muy wala muy bett wala muy bett ñu bëri quoi parce que kone xam na ni buñ naan football anglais yi ñoo tax comprendre nga mais kon na xëy na euh, buñ ci amee lii tamit ah dañuy sant yàlla rek xam ni tamit euh, ñi toog ñi njëkk toog gënuñu leen quoi. man loolu laa ci am jàngat boo xam te ni gis naa ko ci quoi sincèrement parler. en fait ay jàmbaar lañu joué nañu def vraiment joué nañu même euh, seen match bi pass aussi joué nañu mais you know amuñ chance rek la affaire yi moom chance la rek mais def nañ lépp lu ñu man mais chance gagné moo ñëwul tey rek moo tax ñu perdre. waaw match bi ni ma gisee métti na waaw métti na parce que ku nekk boo sañoon sa équipe gagné mais nag ñu ngi encouragé joueurs yëpp ñu ngi encouragé Sénégal yëpp te xam ne ñun fi daa gën gënu leen gënuñu leen métti na nag trop ma wax dëgg fa yàlla. Euh, le la marche, vraiment, nous sommes déçus parce que euh, nous voulions gagner la marche. Mais malheureusement, euh, l'Angleterre a été beaucoup plus fort que le Sénégal. On doit l'accepter. Les joueurs, vraiment, ils ont bien joué. Ils ont fourni d'énormes efforts. Mais ainsi, c'est la loi du football, euh, le plus fort. Euh, C'était l'Angleterre, donc euh, nous devrons l'accepter et féliciter les joueurs. Vraiment, ils ont mouillé euh, leur maillot. Ça fait partie du jeu. Euh, nous, les encourageons vraiment euh, pour cette défaite. waaw ah, ma masawu ci défaite bi défaite bi métti na moom métti na mais bettuñu quoi bettuñu wax dëgg yàlla am nañu équipe bu baax mais match yi tey bi moom niveau yi bokkuñu daal boo seetaanee match bi nga xam ni niveau. Angleterre ak niveau Sénégal bokkuñu quoi parce que Angleterre moom vraiment soo xoolee seen banc bi rek nga xam ni seen niveau ak su niveau bokkuñu aussi efficacité quoi match bi niñ débuté baax na mais xam naa ni première bii bi daf ñu bett quoi première bii moom dafa xaw a damm moral joueur mais bon nii la football moo demee noonu des fois nga gagné des fois aussi nga perte quoi tey moom du bisu victoire. waaw message bi ma am pour euh, xanaa ñu gën a ñu ñu gën a muñ rek te gën a gër góor góor góor góor góorluwaat. gën a defaruwaat comprendre nga pour préparer waat euh, am na yeneen compétition yu nekk ci ci suñu ginnaaw ba pare en plus euh, comme am nañ ay euh, comme suñu attaquant bi xam te ne Sadio Mané moom it xam nga place feeñ na fi bu baax a baax a baax baax mais nag yàlla moo moo am dogalam daal xëy na nii la ko bëggee woon quoi mais nañ ñu ñibbi ci jàmm rek préparer waat xaar yeneen compétition. maa ngi leen di encouragé di encouragé aussi sama mbokk sénégalais yi ñun ñëpp ñu ngi leen di encouragé. yoon yemul si benn peut-être que 2026 nekk coupe d'Afrique coupe du monde comme nekk nañ coupe d'Afrique. ce n'est pas facile parce que nous voulions vraiment gagner le match et prendre la coupe du monde pourquoi pas mais bon euh, c'est la loi du football le plus fort à gagner on l'accepte et on encourage les joueurs. mais nañ ñaanal Lions yi vraiment encourager te xam ni bu a yokk daal beneen yoon. dina baax gën a gor aussi gën a renforcer waat rek équipe aa ah li ma leen euh, message bi may jox mooy ñu ñu jéem a muñ rek jéem a jéem a ñu jéem a jàppaat jàppaat bu baax baax xam ne gars yi ay jàmbaar la wax dëgg fa yàlla ay jàmbaar la ñoom ñëpp dëgg fa ñu ngi ñu ngi leen a jiiraat ñu gën a jàppaat bu baax a baax baax incha allah yoon yëmuñ ci benn léppay baax incha allah. waaw gars yi euh, gars yi koy wax bari na gars yi koy wax bari na mais nag man kiiw ma ko mais gars yi koy wax bari na après xam naa si war naa ko man a xool sax ba gis ko comme que gars yi ñu ngi naan dama nuroog moom ak yooyu noonu comme fu ma génn ñaambay da nga nuroog moom ak noonu ma war ko mën ma gis ko xool ko ci xool ko ci internet pour gis ko. waaw rendez-vous bi ñu ngi leen ko jox fii 2026 ici aux États-Unis <laughs> incha allahu rabi dañuy dañuy am ndam. di ngeen jëf mbokk yi ñu doon seetaan Senego TV senego.com gis ngeen reportage bu am solo bi ñu leen defal tey jii ci match bu mag bu doon daw diggante Angleterre ak Sénégal suñu gaynde yi mujj ñu ñoo jël defet lu toll ci ñetti baal ci dara. fii la ko yàlla yemale woon di leen jox di daje ba 2026 fii ci États-Unis mu nekkoon seen reporter Seydina Alioune Ndiaye fii ci New York pour Senego TV